La bien bienvenue au restaurant fast food pâtisserie La Sainte mbokk yi yéena ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng bu ngeen ñëwee foofu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko leen ko jox ñun Sen restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 132 97 97 lépp li nga xam ne ni ñu ngi koy defar mënees ko lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Gorni Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne ni dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer li waral suñu teewaay fii ñun collectivité lépp dañoo wuy si rek woote sëriñ Touba ndax dafa waxoon ne nañ ko santale yàlla ci bés bi te alhamdu wa shukru kon jàpp nañ ne sant yàlla képp ku ko def dalay yéege kon sunu maam sëriñ tubaab mi créé bés bii ba tey ñu mën fee ñëw man cee jële tuyaaba kon loolu mën nañ ci am yaakaar nitu yàlla nag la mbiram mel noonu waaye ñun dañoo dabu si rek suñuy tànki maam ndax suñu maam Serigne Touba radiyallahu taala suñuy maam ñoo ko dalaloon ca Ndakaaru kër sama maam Binta Mbeng barke ba fa wàcci moo waral tey ñu ñëw tey jii ci dëkk bu tedd bi ci famille bu sell bi ci nit ñu baax ñi ñu ànd ak ak sunuy bopp la région du Cap-Vert bi nga xam ne tey jii borom ndombi tànk yi fa nekk yépp ñoo ñu gunge ñu ànd ñëw ci bésu Serigne Touba bi di ñaan yàlla subxanahu ñu gën di ko def waaye nag daf si am lu extraordinaire ndax tey jii bi nuy ñëw yàlla dafa dogal. ñu monter lu ñuy wax lébu gi des médias lébu gi des médias ay première image am fii lañ ko jëkk a defe kon tey fii si Touba ci kanamu xalifa si kanamu sëñ Bass Abdou Khadre fii lañu ñu lancé lébu gi des médias lébu gi des médias nag ci kanam tuuti ñu xam li ko ëmb lan la groupe de presse la boo xam ne tey jii lañ ko lancé waaye li ko ëmb ci temps gàtt danañu xam lan ak lan a ci nekk ndax tollooguñ ci dañ doon ñëw rek lancé ko fii ci Touba tàmbalee ko wax ko fii ñu jëkk ko fee dégg les premier images fii lañ ko jëlee tey ci Touba kon ci bésu suñu maam Serigne Touba bi looloo neex yàlla waaye ñu dellu sant nag sëñ Bass Abdou Khadre bu baax ci accueil bi mu ñu defal ci wax ju tedd ji mu ñu wax waaye ñu wax ka ne ko ci jamono indépendance ba tey tey la Ndeye Ji Réew masa ànd ak délégation ñëw Touba Ndeye Ji nag laa wax borom ndombu tànk bu ne ñëw na fi ànd ak délégation waaye Ndeye jiréew ju ànd ak délégation tey la masa am ci Touba mu méngoo nag ak ñuy lancé groupe des médias bu tudd Lébu gi Lébu gi des médias kon jàpp naa ne incha allah sëñ Bass Abdou Khader wax nañu ko ak moom nangul nañu ko que dana ñëw gane dana ñëw gane ñu ngir topp tànk maamam Serigne Touba yooyu ñu nit ñu def suñu kem talaay kattan ci teraanga joo xam ni moom la suñuy maam defaloon Serigne Touba te incha allahu rabi li ñu tàmbali tànki kanam la am du dellu gannaaw incha allahu rabi euh, jàmm jooju. li ñuy def nii jàmm tax ñu man bu dul woon jàmm taxawaay bi du man nekk kon jàmm jooju yàlla na sax waaye njiitu réew mi président de la République son excellence monsieur Macky Sall def mu boole ci ñi mu wax ni dafa yaakaar ci ñoom pour dalub réew dafa yaakaar ci ñoom pour jàmmi réew moo tax booba ba léegi ñu sol suñu daal di dox jàmm jooj di lëkkale mbokk yi fu am conflit ñu dem fa fu am différence ñu dem fa fu am juuyoo ñu dem fa loolu mooy suñu rôle te it ñi nu jiital loolu la ñu jiitale dañ bëgg ñu représenter leen ci jàmm dañ bëgg ñu di leen doxal ci jàmm dañ bëgg ñu di leen waxal ci jàmm kon jàmm jooju moom la ñuy tàllal moom la ñuy woote moom la ñuy appel bi wootee ci ndaw réew ñi mooy jàmm ndax ñoom ñooy ndaw yi ñooy avenir kon ñoom la ñuy xàllal jàmm ku lay xàllal jàmm nag boo ca ëpp tëddee yaa ko kon ñu ngi woo ndaw yi ci jàmm ñu leen di woo ci volonté ñu ngi leen di woo aussi ci ñu sàkku xam-xam parce que xam-xam mooy yor réew ak volonté kon ñu ngi woon ndaw ñi ci volonté ak xam-xam boobu. La bien Bienvenue au restaurant fast food pâtisserie La Sainte. mbokk yi yéena ko doon laaj andil nañ leen ko. ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte am ñu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé suppu kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng bu ngeen ñëwee foofu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko jox ñun Ramatoun restaurant La Sainte ngir i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 132 97 97 lépp li nga xam ne ni ñu ngi koy defar mënees ko lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne ni dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer